seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang yër yéenekaay yi ak président Macky Sall mi wéy na faax ci xëtu yéenekaay yëpp ba mu tàmbalee groupe consultatif ba tey tey nag li ko waral moo di inauguration autoroute Ila Touba yéenekaay bi du l'Observateur na Macky toj na Touba Macky Sall toj na Touba démb ba muy inauguré autoroute Ila Touba yéenekaay bi Le Quotidien na moo tax dana autoroute à péage ay ñaan yu tara tara tar lañ defal ki nga xam ne moo di Macky Sall yéenekaay bi les échos xalif bi kay ñaanal na Macky Sall na ko lépp lu mu sumb ci ay projet ci réewum Sénégal yàlla na ko yàlla may mu yeggale ko yéen kaay bi di laas ne ah dafa mel ne xalif bi mi ngi jàppale kii di Macky Sall source a ne la xewoon ca Touba démb jéggi na doy mobilisation bu rëy rëy moo fa am moo taxit Macky Sall 24 heures ne campagne na de ba mu saf sàpp démb ci ay kàddoom enquête ne xam nga lu def décrété na Touba seconde ville économique yéen kay bi les économies yamu ci dee kase na prix yëpp nee na AIBD ba Touba mille francs doy na ci Dakar ba Touba mille francs doy na ci ba tax direct info ne xalif général bi daal kontaan na ci Macky Sall moom. loo mën a wax it moom sëñ Mountakha kontaan na looy ci président Macky Sall l' évidence ne autoroute bii njuuj njaaj escroquerie bëri na ci de lu mën a amit ba des Macky Sall démb fi nekk nii daal ngi neexal murit yi ñu jëm ci élection présidentielle Walf Quotidien moo ñu wax lu ñu mel ca booba Khalifa Ababacar Sall mu ngi janoog ñi nga xam ne ñoo di magistrat ca cour suprême yéen kay bi les échos ne suspense la nar a dundate ci candidature Khalifa Sall lu taax cour suprême nee na 3 janvier lay joxe verdigam xalifa Sall xam fan lay taxawee enquête ne ah xaar bi nar naa métti de lool lool waaye ci biir xeexoo bi yéen kay bi les ne avocat yi démb procès bi bu baax a baax chargé nañ tamit juge Amadou Baal ni nga koy àtte dara du ci dëgg ku dee ak sa bàmmeel waaye li ngay def xam nga ne dara du ci dëgg cour suprême démb comme guerre moo fa amoon ndax lañ fa teg ci waaye takk der dafa jéggi dayoo ñooñu xalifa saa yi nu randal leen ca biti waaye ci biir di judiciaire bi yéen kaay bi di enquête mi ngi ñuy yëgal ne. bu fi mu nekk nii avocat Khalifa Sall démb génne nañ pexe yu bare bare bare bare bare yu aay la ñu génn ak tamit li ngeen violé li nga xam ne mooy say a ak yelleef combiné article soixante onze ak cent soixante sept mais dut ndooy xool magistrat yi ba seppli leen ne leen ngelawaay am nañ tuuti rusukaay ndax saa bu ñu génnee dem bitim réew yeneen bërëbu àttekaay seen nawle yi fa nekk ne li ngeen def jaaduwul du ñu fàttali suñu droit am nañ tuuti rusukaay vox populi ne maître Clédor Ciré mi nga xam le ne bu nguur gi deful li nga xam ne moo du coup force xalifa Sall dina doon candidat si quotidien ne li ngeen ci xamul audience bi acte un dong la xeex bi day wéy ba tey ji Dakar Time di ñu yëgal ne carte électorale bi boo sàggoon am na 645 bureau de vote fictif loolu seet nañ ko xanaa looloo dalal xel DG impôt bi ci biir yéenekaay bii di direct info mu ne Macky Sall 24 février 2019 lañ koy falaat waaye Boubacar Camara ci biir yéenekaay bi di témoin na Macky li mu yore réew mi dara baaxu ci jërë ngeen jëf déglu ñu ne région jan seen si dakarmatin.com incha allah